waaw sant yàlla rek dañuy sant yàlla parce que boo jongantee yàlla may la ndam balaa ngaa def dara da ngay jëkk sant yàlla ba pare boo santee yàlla ba pare nga sant ñii la jox ndam bi mooy waa yi man damay sant waa Wakaam yëpp ndax aw seen fay def nañ li ñu waroon a def yàlla dimbali nañu am nañ ndam kon maa ngi félicité waa Wakaam yëpp di bokk ak ñoom ndam li wax ndam li du sama ndam ndamu waa Wakaam yëpp la di leen wax ñu gën a jàpp pour euh, bataay future yi ndax ay yeneen élection ñu ngi ñëwaat ñu gën a jàpp pour que yàlla gën ñu defal ndam li ñuy xaar mooy promesse yi loolu na seen xol sedd dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax surtout l'assainissement loolu mooy bi si ëpp solo beneen bi mooy jéem a waxtaanaa tax ñëpp parce que am na nit yoo xamante ne dañu def li ñuy wax intoxication wax loo xam ne loolu nekkul dëgg bu ma jëlee population yu cité ASECNA yi liñ leen wax ak lii nekk dëgg du benn donc te ñoom ci Wakaam lañ bokk li ñuy def man du sama njariñ man mais njariñu waa Wakaam yëpp la donc on va venir on va discuter avec ñoom pour vraiment aplanir toutes les difficultés nga xam ne dañuy nekk même longueur d'onde ak ñoom ci information yi nga xam ne ñoom ñoo am parce que campagne bi xatoon na diggante bi xatoon na moo tax peut-être que waxtaan bi waroon a am amul may jéggalu aussi quartier yi nga xam ne jotuñu fa yegg surtout ñooñu parce que am na ñu toogoon di ma xaar ci yeneen quartier yi mais mënuñu woon egg ci ñoom parce que ñun Wakaam dañ perte juróomi fan yoo xam ne campagne wu ko parce que y la finale ah euh, li am ci finale bi yëpp ñuy renouveler waat suñu condoléances yi ñu présenté mbuur waa yëpp donc ñooñu vraiment maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax di wax ne xëy na jot ma amul mais ñoom it ñu gën a jàpp xam ne li ñuy ñafe pour foofu la war nañ def seen dëkk yi ay tali yàlla mu ñuy dimbali ñu ngi xeex si éclairage public bi ñu ngi ciy def lu ñu man mais du loolu kese du loolu kese am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne war nañ ko def si biir foofu loolu mooy lii si am solo jàppale nañ président Macky président Macky xam ne jàppale nañ ko kon ñu nit dañuy gën a ñaanaat président Macky gën ñu jàppale ba nga xam ne problème yu bëri dinaa ko mën a saafara ndax kuy politique su la suñ la jàppalewul nga dem say moyen boppa rek dafay xaw a doy waar tuuti kon loolu dañuy lancer waat un appel au président Macky sal que vraiment mu jàppale ma ma jàppale waa Wakaam yi bu baax. maa ñoom ñoo ko bokk li ñuy liggéey ñoom ñoo ko moom ndaw yi li ñuy liggéey ñoom ñoo ko moom dama leen wax na ndaw yi gëm seen bopp man bi may jëkk a nekk maire ndaw laa maa gënoon tuuti si maireu Sénégal yi ndax. gëm sam bopp loolu laa leen di dénk ndaw yi nañ jël exemple si man nañ jël exemple si man la valeur n'atteint point le nombre des années kon nekk ndaw terewul a am jom terewul a doon nit ku baax terewul doon nit boo xamante ne il est nit daal yàlla balaa fay feneen dama jàpp ne fii lay jëkk a fay na ndaw yi gëm seen bopp nañu ñëw engagé wu politiquement ñëw soutenir ñoo xam ne ñun amuñu beneen intérêt lu dul am amuñu man mboog aw ma beneen intérêt lu dul wakaam wakaam mooy sama parti na si ndaw yi gën a ñëw ñu jàpp ñu bañ déglu ñoo xam ne dañuy ñëw loolu rek mooy seen métier bu élection jotee ñu dugg profito dugg tàngal xolu nit yi di wax di n'importe quoi nga xam ne ruus naa ko sax tudd ci fii nii nii nii dama ko ruus ndax wax yu bon la ñuy jël di wax naa maire bi moo wax lii moo wax lii ah bu ñu déglu ñu maire buy wax lu bon population du ut lu baax di ko indi pour population te tey ñun Wakaam dañu war a sant yàlla bu baax si dëkk yi nga xamante ne yàlla gën a bëgg si la bokk gis nga bu tawee à quelque quelques kër te loolu ñu ngi si travailler dëkk bi du inondé quelque buñ ñu toogee trente minutes doo gisati fu ndox bi doo gisati ndox bi loolu xéewalu yàlla la xéewal yooyu buñ ko buñ ko fontoon bu fekkonte ne dëkk bi defaruñu ko kon dëkk bi du mel noonu kër yi nga xamante ne aussi day am ay difficulté ñu ngi jéem a recenser pour xam luy difficulté yi ñu ñëw ñu jàpp si kon ndaw yi kër yi yéen a ko moom suba dëkk bi yéen a ko moom suba ñun dañ leen accompagner rek dañ leen accompagner ba ngeen xamante ne man ngeen boo leen manee ñun dañuy rocceeku bàyyi leen yéen ngeen dem mais nag ku jàngul du tari na ñëw jàng politique ànd ak ñun ñu def politique bu ko defee suba mu wér ñu ne am nañu relève bu ñu amee releve ñu génn bàyyi leen ñoom ñu continuer ndax wakaam non dañuy def benn caravane génn dinañu mën a may ñu jaar ci dëkk bi ñu xam ne ñoo gagné d'abord parce que boo gagné da ngay wane ne yow yaa gagné ñu wane ne non seulement ñoo gagné Wakaam mais ñoo gagné le département de Dakar c'est extrêmement important parce que démb ay jiixi jaaxa amoon na ñoo gagné bokk nañ ci communes yi gagné yi nga xamante ne ñoo indi ndam li loolu dafa am importance ba population bi xam ne ñun ñoo gagné ñi nga xam ne ñoo ñu voté toog seen kër yi. bu ko defee ñoom nañ kontaan mais loolu yëpp bu paree dinañ defaat travail bi ñu duggaat ci quartier yi santaat nit yi gërëmaat nit yi du ñu si loolu rek difficulté yi dinañ ko jéem a aplanir maa am du am problème fu may jeexale mooy maa ngi gërëmaat waa Wakam bu baax maa leen di santaat bu baax a baax a baax tolof tolof bu am ñu ngi koy jéggalu parce que xëñ na suñu meeting yi ñu ngi doon tànqal ay nit def nañ la tout nag pour bañ a sonal population yi ndax ren kenn gisul ñu def caravane dama doon wax bu ñu def caravane ndax bëgguma sax circulation bi ñu koy bloqué bu ñu def caravane ndax xëñ na sono bi dafay tànqal nit yi moo tax gis nga bu ñu ñëwee si quartier bu ñu yendu dañu fay dugg ci kër yi musique sax damay wax bu ñu ko taal dañ bàyyi ba guddi rek ñu teg suñu musique def suñu animation après wàcca dem donc jéeg jéem nañ le maximum pour bañ a déranger population yi pour bañ a sonal population yi parce que tey campagne électorale warul jot rek nit yi ñëw di baare ay tali di taf muru jàmbur yi yooyu yëpp dama ko éviter dama éviter fekk miiru jàmbur ma ñëw taf si parce que xaw ma borom miir bi lu mu daj pour defar muram wala gisu leen ni ñu bind si benn mur dama doon wax buñ ko def ndax tamit tooñ baaxul tooñ baaxul donc yeneen yi nag yu mënut woon ñàkk la mooy meeting jot ñu déranger nit yi ak suñu sonorisation ñu ngi ciy jéggalu ah beneen bu mu mun a doon bu ma yëg ah bu ma yëgul maa ngi jéggalu ñëpp ci lépp loo xamante ne manquement la di remercier aussi la bi nga xam ne moom laa àndaloon muy coalition Benno Bokk Yaakaar di remercier le président ci jiital gi mu ma jiital ndax même am na ñu ko fi nekkaloon waaye dafa ñëw ne ma yow yaa jiite ñu nanguwul ma aussi jiite bi am na ñu nanguwul ma amul solo terewul victoire bi ñëw mais maa ngi remercier vraiment le chef de l'État di remercier tout la population de Wakaam ndax ndam li du sama ndam ndamu Wakaam la Wakaam la wax moo gañe waxuñu Samba Bathily Diallo moom moo gañe di gërëm di dañuy bañ a tudd rek am bu ñu fàtte mu meer victoire bi nag yëpp la amul ku gagné amul ku perte yàlla dafa def ñun Benno Bokk Yaakaar la Wakaam wóorul kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu wax ne engagement yi ñu jëloon yëpp yëpp engagement bi ñu ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mais profité nag di nuyuwaale sama chéri booba xarit yi maa ngi lay bu baax. ñu ngi leen di nuyu waa Kër Moussa Ndeye Diop jërëjëf di ñu gërëm ba ko Seydou Diallo muy kër ñoom Seydou Diallo bi nga xam ne koo réeré si ñeneen ñi mais nee amul seen way gis nga ñaan gis nga taxaw li gis nga lépp di nga ko jàppale waa kër moom waa loolu et yow yaa ngi bitim réew amaana sax yaa ngi Sénégal waaye amoo jot fen fenn kese nga mën a dabee télé sénégal point com man Simon maa ngi seetaan télé sénégal point com